ami internaute de Senclic TV ami internaute de Senclic euh, point com ami internaute Actu 7 News Actu Net Actu 7 News TV donc ñu ngi fii ci foire bi ci préparation foire internationale de l'élevage euh, le 27 euh, janvier. jusqu'à 5 février 2023 ñi ko organisé di ADAM ADAM nag nekk organisation boo xam ne alliance sénégalaise pour le développement et l'amélioration des races tey actuellement ñu ngi ci installation bi ci préparation bi donc nekk foire boo xamante ni un peu partout donc euh, nit ñi dañ fay jógee ñëw euh, exposé donc seeni seeni l'élevage exposé donc li nga xam ne nii donc ci la ñu yëngatu ci wàllu l'élevage que ça soit des moutons rawatina nag euh, fii nga xamante ne mooy Sénégal donc li ñu tàmm mooy suñu yëf di laadum mouton laadum ngi fi ñëw fekk fi ay laadum yu extraordinaire à partir de 27 janvier jusqu'au 5 février donc voilà donc liñ fi seetloogum nag ci ay box yi nga xamante ne installé installé nañ ko ci préparation mu ngi toll ci cent 265 de box yoo xamante ne donc ñu ngi ko installé fii donc dina ñëw nag Euh, gisante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo res organisation bi ñoom ñooy waa Adam donc ñu wax ñu tuuti ci organisation bi puisque tey la quatorzième édition donc bi ñu ko dalee euh, bi ñu ko dalee bi ñu ko dalee ba léegi donc tey euh, dinañu wax actuellement nii donc lan mooy programme bi donc sur le plan financier aussi donc lan mooy loo xamante ne lu bees la tey comme chaque année dañuy faral di def di améliorer aussi di def ay surprise donc voilà dinañu wax catégorie aussi tamit de de yi nga xamante ne mu ngi fi ak bi ñi di préparer donc c'est maintenant mbokk yi euh, ñu dugg ci biir won leen donc installation yi quelques euh, quelques box yi nga xamante ni donc travaux yi actuellement ñu ngi nekk di installer ñu dugg xool ko ñëwaat. dernier chapitre ba ñoom amul numéro. coow li nekk fa nga ne. bu coow li nekk. seetaan bi gis amul nekk. moom sax ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom dama yor benn xar boo xam ne mbokk internet yi ñu ngi ak Moussa Yade ba pare nekk euh, chargé d'organisation ba pare nekk membre aussi ci ADAM ADAM comme ni ma leen ko waxee alliance sénégalaise pour le développement et l'amélioration des races tey nag ñu nekk ci quatorzième édition donc du foire internationale de l'élevage tey moom la ñu war a waxtaanal tey euh, Moussa maa ngi lay nuyu. waaw Jules euh, maa ngi lay fay di nuyu sunu mbokku téléspectateurs yëpp. waaw di leen nuyu euh, di leen ziar. tey euh, ñu ñëw ci foire bi nga nekk ci préparation bi di waajal ci installation yi tey est-ce que mën nañu xam tey sur le plan euh, technique tey ok donc lan ngeen ci nekk di waajal actuellement. waaw ci côté plan technique am nañ yenn amélioration yu ñu def parce que chaque instant chaque année sax laay wax bu ñu defee foire ba pare dañuy xool parce que duñ ñàkk ay innovation yoo xam dañ koy bëgg. Euh, pour beneen année prochaine voilà moo tax boo xoolee ci disposition ni ñu defee foire bi ak euh, suñu treizième édition euh, am na ay changement parce que bi dañ ko gën a améliorer ci côté matériel logistique ak ci côté plan d'aménagement voilà. tey est-ce que mën nañu xam tey fekk nañ fi plus plus de deux cent soixante cinq box ñu xam sur le plan financier ak donc li ngeen ci coût bi mu leen dikkee ci organisation bi. waaw euh, coût bi mu ñu dikkee euh, vraiment cher na trop parce que boo xoolee lu toll nii euh, ku koy organiser xam nga xaalis moo koy def parce que actuellement nii lépp a cher voilà 265 exposants nga dajale leen fii coût bi cher na parce que boo xoolee lépp rek normalement war nañu mën a coûter ay à peu près ay 80 85 millions voilà ci côté organisation communication lépp voilà loolu nag cher na trop. voilà mais nag euh, tamit euh, laaj na euh, comme état bi jàpp ci defal ñu subvention voilà. ok donc 80 millions ci organisation bu toll nii mais tey sànq wax nga sur le plan de la communication daaw édition 2013 donc gis nañ fi ay étrangers yu jógee ci sous-région bi ñëw mais est mën nañu xaaraat ay sous-région yoo xam ne ci sous-région bi la jógee ñëw exposé. waaw waaw sous-région bi chaque année dañ leen di invité parce que sous-région bi am na ñuy jógee Mauritanie. Gambie Mali marocains yi invité nañ leen même Niger ñoom ñëpp invité nañ leen en même temps tamit euh, même euh, fii euh, Sénégal am na association boo xam ne bu ñuy wax fédération bi FENAFO ñoom it dañuy ñëw parce que région bu nekk am nañ fa ay représentants ñoom it dañu leen invité pour ñëw participer ci foire bi. ok d' accord léegi ñu wax ci ci box yi tey pour nga ñëw exposer nekk fi au niveau de Dakar donc participants yi naka lay demee. waaw waaw pour nga exposer fii euh, participant bu nekk euh, dina la coûter euh, cent cinquante mille box bi voilà mooy location box bi. location box 150 000 mooy location box. voilà pour exposer ñoo mën a participer au foire du concours. voilà pour nga mën a part exposer fii nag avant ngay ñëw fii parce que dafa am ay sélection yu ñuy def mooy foire sectorielle yi léegi nag foofu boo qualifié si ngay mën a ñëw fii ci saladam bi bi mooy foire bu mag bi ñi gis fii yëpp ñuy exposé. ñoom fële lañ jóge parce que ay sélection lañ doon def am na ñoo xam ne qualifié nañ am na ñoo xam ne qualifié wuñ léegi na ñi qualifié ñoom ñooy ñëw pour mën a euh, ñëw ñëw ci saladam bi. kon Fouad mën nañ jàpp ne daal pour nga mën a exposé wala participants yi par qualification la. waaw par qualification la waaw voilà. ok d' accord souvent aussi tamit ci euh, concours yi parfois dañuy faral di dégg problème ci xar yi donc bi moo gën a njool ni ñu ko takkee baaxul mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy def concours yi di def di longare di xool techniquement euh, ren ba est ce ngeen ci ci ci problème yooyu. waaw waaw préparé nañ loolu yëpp parce que xam nga concours moom euh, ku wax concours mook ak coow ñoo ànd parce que am na ñoom ne tey ay mauvais perdant lañu quoi coow mën see ñàkk mais chaque instant rek dañuy gën a améliorer. di euh, moytu yi nga xam ne tey peut-être mooy frustré yenn yi euh, moo tax ñu jël ay superviseur yoo xam ne ñoom ñooy saytu euh, vi kii jury yi ñoo leen di xool pour xool est-ce que xar bi niñ ko takkee baax na walla baaxul pour ñëpp yam ci même pied d'égalité loolu moo waral ñu wut ay superviseur xam ne léegi coow yooyu nga naan dégg kii naan sama xar niñ ko takkee baax na ñi naan baaxul léegi superviseur yooyu ñoom ñooy xool bu fekkee baax na ñu valider bu baaxul tamit ñu xaar ba mu normal ñu valider. voilà euh, laadum bi mu ngi commencé am doole donc di commencé génn ci sous région bi di dem un peu partout donc ñu xool ràññ ci koo xamante ne aussi leader la ci yëf yi muy Abou Kane tout récemment gis nañ ko ci benn interview ci benn presse internationale donc buy intervenir par rapport ci laadum bi mais est jàpp nga ni tey donc euh, foire bi. Euh, comme foire internationale la donc sur le plan l' tey est ce que jàpp nga ni à travers le foire aussi mën na nekk di pousser wala soit mu ngi pousser euh, laadum bi mu ngi pousser élevage bi pour génne ko ci biti. waaw waaw li nga wax ni euh, am na solo parce que boo xoolee laadum bi bu njëkk ci sous région bi la yemoon dama naan sax fii la yemoon Sénégal comme bu demee ba sous région bi tamit ñoom ñu ñëw muy sunu mbokk maliens yi mauritaniens yi gambiens yi ñëw di ko jënd fii. loolu tamit dama naan Ladoum bi am na yokkute kon su demee tey euh, ba euh, yenn télévision euh, internationale yi ñëw lu mel ni France ñëw fii di def ay reportage ci Ladoum yi kon nga xam ne Ladoum yi mi ngi leen di commencé di intéressé parce que su ma fàttalikoo ay at ci ginnaaw exposé woon nañ fa ay Ladoum ci salon agricu salon agriculture bu Versailles mais ay photo rek la ñu yóbbu woon exposé ko ci standu Sénégal parce que tubaab yi affaire bi intéressé na leen parce que ñu ngi doon ñëw Euh, di poser ay question di laaj ci affaire Ladoum mi kon bu ñu demee ba mu jaral leen ñoom ñu ñëw fii di def ay reportage si Ladoum yi kon damay gëm ne Ladoum moom euh, jël na beneen tournir tey Adam mooy alliance sénégalaise pour le développement de de l'amélioration et des races tey est-ce que tey tey Adam mën nañ xaar un jour Adam ñu ne non day fay déplacé wu jóge Dakar juge Sénégal dem ci sous-région bi génn quoi. waaw waaw loolu sax moom Adam moom mi ngi koy def parce que boo xoolee yàggul dara. Euh, génn nañ dem nañ fi yàggul dara Gambie ñaari yoon ci ay foire te tamit ñi ngi xaar euh, yeneen yeneen foire yoom yi nga am si région bi comme ni ñu koy defee ñun bu ñu amee foir euh, dañ leen di invité ñoom ñu ñëw ñoom bu ñu amee foire dañuy invité ñu ñëw parce que élevage moom ñun ñëpp benn lañu quoi voilà. ok merci Moussa maa ngi lay jaajëfal. Ah, merci beaucoup merci.